ci koor gi am naa lu ma def am naa lu ma def ñetti ñu da ngay génn ñu naa bàyyi guro bàyyi guro bàyyi guro mais bàyyi guro bàyyi guro bi daf ma lor dafay dem ba biir korite sax man awma lu ma korite parce que daw naa ci fil bi di dox ak ñoom di dox ak ñoom di dox ak ñoom dox ak ñoom te dara amu ci. ni mu siiwee dara amu ci. bi. ah euh, production euh, wax dëgg yàlla man maa ngi tourné ak euh, nu mu tuddati Cheikh Ñax production fii laa tourné moom. li gën a metti sama àdduna tamit si la parce que mënuma wax ne. artiste bu foor laa waaye artiste bu mag la réellement yaakaaroon naa ne euh, euh, euh, bu mu duggee ci dara ñoom dinañ ko mën a parce que ñun mënuñuy filmer di mënuñuy di tourner daw di wuti ay sponsor waaye ñoom waroon nañu am loo xam ne boog ñaar wala ñetti sponsor léeg-léeg bu ma doon toog di ko seetaan vraiment damay ruus damay xool ñi xam ne ñu xale yu yu xam ne xale bu bu ndaw amul dans théâtre mais xale yaa ngi ñëw bees nga ñëw toog ñooñu mën a dox ba am yow yow nga mën a toog de yow yow te dañ ñu toog ñu wax def nañu def lii premier mois premier mois dinañu dinañu def li def li dinañu ko ay sponsor ay dag ak yi xew legi rek dinañ ko duggal internet ak ay nangam nangam bi bon bla bla bla bla bon on a dit on a dit bon bon ya de l'espoir allez allons-y mais dañuy dem ba ci bir xamne lañ doon wax yépp du deug